asalaamaaleykum ñu ngi ziar ñëpp di leen nuyu ci barke Xaadim Rasul moom mi nga xam ni moo waral bis bi nga xam ne tey waa Carrefour Thiès ñu ngi ko aye tey ci dix ci dix-huit safar bi ah ñu tànn ci bis bi nga xam ne nag muy talaata di tey ñu defee ko fii nga xam ne tey moom mooy Carrefour Thiès muy promenade des Thiessois vraiment di sant ki nga xam ni moom mooy borom site bi di Seck nekk président des des tailleurs mu nekk site bi nga xam ni ah waa Thiès rek moom moo ko ñor. vraiment di ñaanal ñëpp ndax suñ taxawee fii war a sant Serigne Touba ci sant gi mu wootee ni kaay leen ngeen sant la yàlla ah ñun ñu tànn bis bi nga xam ne mooy talaata di diiru si tey bi ñu ne ñu fa yéenee def safar ah fas yéenee jëm ca bis bi nga xam ne mooy 18 safar ñun ñu tànn talaata bi tey kon du ñu def lu dul di gërëm ñi nga xam ne tey ñoom ñoo ne ci Carrefour Thiès ah bay seen waar ngir lan Thiès mën a dem ca kanam ah groupe bi nag waa Thiès kaay gi yëpp ñoom ñoo ko moom mu ñu tuddee ko Carrefour Thiès kon suñu ñëwee fii gis ngeen berndeel yi ñu fas yéenee berndeel jox ko jàmm jaamu yàlla yi pour lan sant la Serigne Touba bisam bii nga xam ne da koo woote woon ni nañ sant bi ci nga xam ni mooy sunu borom kon ñun danoo war a sant di santaat kenn koo xam ni kenn la ci ñun muy El Hadji Mor Gueye sopp na bi moom mi nga xam ni bi mu jàppee ba léegi bàyyiwul bi nga xam ni jàpp nañ bis bi dañu bis bi sama bis la taalibe sëñ Babacar si boobu taalibe Cheikh boobu nga xam ni tarixa yëpp mu ngi yëkkati alalam di ko ci def El Hadj Mor sopp na bi dañ koy ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal ay xéewal ndax bis bi jàpp na ci bu baax Carrefour Thiès nag di sant kenn koo xam ni tamit nekk na ca bopp ba muy Sila Sila mi nga xam ni vraiment maama see ngi ni sama jigéen di jigéenu El Hadj Mor Gueye sopp na bi nekk nit koo xam ne saa yu ma ko xoolee damay gis ci moom El Hadj Mor Gueye sopp na bi li tax ndax dafa yor jukko joo xam ni jukko yonent la làmboo muy Adja maama mi nga xam ni maama mooy yaay mooy yaayu groupe bi moom ak Kanku Diagne ak ki nga xam ne mooy treize vraiment sama gaa yaa ngi nii gis ngeen tey ñu ko defee sol suñu t-shirt fa seenee màggal bis bi nga xam ni Serigne Touba moom moo ko wootee muy kaay leen sant la ma yàlla gi Ibrahima si mi ngi nii ndok topp ci ginnaaw Mor Gueye sopp na bi di liggéey liggéey bu mucc ayib bi moom Mor Gueye sopp nday bi moom mooy ndeyam moom mooy baayam te da koy wane di ko di ko doxal di wax lu baax képp koo xam ne bëgg nga Mor Gueye sopp na bi maama dafa lay bëgg ndax jigéen la joo xam ni jigéen ju am jom la ma koy ñaanal gudd fan ak wér maama bis bi daal rafet na Thérèse Ndiaye mi ngi nii moom tamit di xaritu Mor Gueye sopp na bi te mën naa koo waat ci alxuraan ñii dañoo bëgg El su Mor Gueye sopp na bi Mor loo jàpp ni doyul ndax xas nañ la jàpp ba abadan di la ñaanal gudd fan ak wér lépp loo sumb yàlla na nga ko daan ci barke Ahmadou Khadim kooku mooy Mor Gueye sopp na bi taalibe sëñ Babacar Si bi nga xam ni tarixa yëpp moom ñëpp la yamale di yëkkati alalam di ko def maama loo wax ci bis bi tey waaw Maodo nañuy sant yàlla bu baax di julli ci sang-sang yi ñaanal way dawlu yi yàlla yërëm leen te xane aljana nañ naan tey 18 safar la murit tiijaan laayeen ñëpp rek nañuy santale rek ki nga xam ne mooy Serigne Touba di kontaan ci Pape Sylla ci xalaat bu rafet bi mu am ànd ceeg ñun Carrefour Kees mu nekk suñu première safar ñuy ñaan yàlla bu mu nekk suñu mujjantalu safar di ñaan yàlla na ñi nga xam ne ñëpp ñoo jël seen alal def ko li nga xam ne mooy safar gi waaye nag du ñu bàyyi ki nga xam ne day sama mag di sama xarit comme ni nga ko waxee muy El Hadj moo koy sopp na bi lu ñuy soob rek macha allah daf ñuy dëbbale di ko ñaanal gudd fan ju ànd ak wér ñëpp xam nañu taalibe Serigne Babacar Sylla waaye kenn ko ci yoonu Serigne Touba bi ci ci dooleem ci ñaqam yëpp da ko ciy def di ñaan tamit suñu ànd bii di Carrefour Kees ñu ànd ko ñun jigéen ñi muy soxna Kanku Jaay di soxna Thérèse Jaay di ñu àndee yal nañ ko àndee ba biir àjjana ànd koog El Hadj Mor Gueye sopp na bi di ñaanal ñëpp jàmm yow tamit ku ñàkk ki ñaan nga ndax na ngaa tëj sa place ñëpp xam nañ tey du dimanche waaye nga tëj sa place ànd ci ak ñun démb yaa njëkk a njëkkat sa teraanga jox ñu ko yoon bi neex lool kon ñu ngi ñaan yal nañu yàlla defal jàmm yàlla a ànd ànd yi Carrefour ci kanam ci lu baax rek ci liggéeyal yàlla suñu borom rek ndax liggéeyal Serigne Touba mooy liggéeyal yàlla tey boo xoolee Tidiane ak Murit ñëpp tey ñoo laxasaayu rek macha allah ànd ak waa Carrefour rek ñu liggéey tëgg semmiñ nag nañ naan neex benn naqari benn te yëfi neex na ala daami na ñu ñëw fi nga xam ne mooy Carrefour kees defe fi safar bi te du ay caaxaan du ay du hasard kon xanaa ma bàyyi Thérèse Ndiaye rek macha allah mu barkeelu moo wax bi Cheikh Ba nuyu ñëpp rek ndax tey nag euh, Carrefour Thiès moo xewle tubaar fakal la macha allah ñu ànd koog ñoom soxna Kankook Mama Si ak Penda Ndiaye ñu ñëpp di ko doxal ñu ciy sant yàlla bu wér di ñaanal Carrefour gi yëpp jàmm di ñaanal àdduna bi yëpp jàmm waaye surtout élage moo koy sopp na bi ñu koy jàmm ñu koy ñaanal jàmm gu bare bari yàlla musal ko ci musiba ak balaa ndax nee bu ñu amee ñu mel ni moom waxuma Thiès mais Sénégal dootul amati néew jën ma du la da lay du la may jën mais da jàngal jàngal ñu koy nappee ku mel ni moom dafa raar te bu mayee ba jéggi loolu fàtte na ko kon kenn moom mi ngi ci jàkka yi macha allah mi ngi ci jumaa yi mi ngi ci néew du doole yi mi ngi ci ñun jirim yi mi ngi ci ñëpp tubaar fakàlla macha allah bu sañoon li mu yor tey ji képp ku ànd ak moom rek di nga ko yor ak ku dul ànd ak moom kon yal na jàmmam yàgg Carrefour nag yal nañu yàlla may jàmm may ko bépp mboolem jullit ñi ngi ñaanal ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi amaat mbégte ak kontaante bu baax di teew fii ci digg place de France di fi taxawal lu mel nii muy première édition safar Carrefour Thiès Carrefour Thiès nag soo ko déggee muy benn groupe WhatsApp boo xamante ni ku ñuy wax alaaji Pape moo ko jiite ñun ñuy ay jigéenam topp ci ginnaawam soxna Kanku Diagne soxna Maama soxna Thérèse soxna Maam Seynabou soxna Penda ak ñeneen ak ñeneen soxna Kadia ñu topp ci ginnaawam di ko doxal ñu taxawal lu mel nii nag tey fii ci digg place de France waaye ak seen doole ndax do euh, àndandoo doole euh, at wërsëg mooy ànd te ñoom dañoo boole seen doole seen wërsëg yëpp ñu boole ko indi ko fii tey def ci safar gu toll nii suñu demee nag ba am fitu dikk ba ci digg xolu Thiès taxaw fii di fi defar safar première édition am nañu ku ñu puus nag wax dëgg yàlla muy suñu mag suñu xarit alaaji Mor Gueye sopp na bi ki nga xam ne bëggul gisul xoolul lijjantiwul loolu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam lu mu def yàlla rek moo tax lu def yonent rek moo tax moo jëf jëf ju rëy jiit tayati ñu koy ñaanal yàlla wér mucc ak xéewal di ñaan yàlla Carrefour Thiès ca kaw ca kanam ci lu baax incha allah. waa R waa RTT muy télé bi nga xamante ni mooy sunu télé vraiment tey ñu ñëw ànd ak ñun ci li nga xamante ni moom mooy safar safar na su ko ñëpp déggee mooy bis bi nga xamante ni weer bi nga xamante ni bi mu teroo ba léegi képp kuy jullit yaa ngi génne sa xéwal di berne ngir jëm Serigne Touba muy liggéeyal bi mu liggéeyal lislaam vraiment di ci am contentement bu baax a baax ci seen taxawaay ni ngeen ñëwee pour couvrir bis bi ñu ci am contentement bu baax ci turu président Momadou Seck euh, ci turu président Modou Gueye sopp na bi ñuy am contentement baax ndax ñëpp ngi dajale seen xéewal pour xool nu ñu defee seen bis bi mu ñëw accompagner waa Carrefour cees bu baax a baax daanaka yëkkati xaalis bu takko takko takko teg ko ci seen loxo pour jëfal amat Cheikh Ahmad Bamba mu Rasoul ci weer wi nga xamante ni mooy weeru safar ni mu koy defee ci tarix yëpp noonu la ko defee ci nga xamante ni mooy fii nga xamante ni mooy waa Carrefour cees ñu am contentement baax di ko ñaan nax ñun ñi rek demoon la noonu ko fecce xelkom président Modou Gueye na bi fépp fu mu dégg xéewal fépp fu mu dégg foo xamante ni liggéeyal islam la euh, xéewalam dina ci dugg ak xaalisam dugg ci lépp dugg ci ñu ñaanal ko rek suñu borom guddal fanam wéral di ñaan na télé bi nga xamante ne moom mooy RTT mu suñu télé bépp artisan ñoo ngi sàkku ñu abonné ci bu baax a baax a baax ndax télé bu am solo la vraiment di ñaan rek yàlla ko suñu borom gën a yaatal xéwal ko vraiment ñu ngi dend ak suñu xarit suñu lépp muy Aliou Ndiaye su ko defee da koy jox moom it euh, mu wax ci bis bi vraiment lan la ci lan la ci yëg ak lan mooy mbégteem ci bis bi vraiment di kontaan seen teewaay fii ci bés bi tey mooy muy nag bésu mbégte bésu safar benn groupe whatsapp bu ñu naan Carrefour Thiès def ko ci njiitalu Pape Silla vraiment ma taxaw suma frère nga xam ne kenn ci yéen ci tailleur yi di président tailleur Madina Fall muy muy Babacar Mbeng di Morde muy bésu cant ndax borom bés bee ni woon bu weer bi teroo ngeen sant la yàlla tey nag ay gor ay jullit tarixa yëpp ndax boo xoolee ñi ko initié daanaka ay taalibe Cheikh lañ ñoo ko unifié ñu taxaw di def safar fii ci bunt mairie bi Mikaland bi di ñaan yàlla lépp loo xam ne jàng nañ ko xa alxuraan bi ñu wàcc ak xase yàlla na ko suñu borom ful yàlla na suñu borom defal ñu tawféex vraiment di remercier nag ñi ci participer ñëpp ñi nekk ci biir groupe bi ñëpp mais nag di defal mention spéciale El Hadj Mor Gueye sopp na bi bi nga xam ne tey bu ko neexoon moom dong mën naa def bés bi mais xool ni ñu borom daw nekk fi mu nekk ba ci bitim réew yónnee def lii teewul mu woote waat bool bokk na ci yeeg mooy soññee ak njàngle ñu ngi ñaan daal ñi fi teew lépp loo xam ne ab yiw la yàlla nañ ko bokk lépp loo xam ne ab yoon la ak fay yàlla nañ ko bokk alaaj moo ne yàlla na ko suñu borom yokk yokk mboolem initiative ñi ko def ñëpp ak ñi ci tàbbi seen dërëm am ñoom tàbbi ñu seen mais seen ñaq ak lépp a ngi fi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. nuyu bu baax di am mbégte lool ci seen télévision bi nga xam ne ci Seck ni ma ko waxee woon rek day suñu télé. muy télé boo xamante ni suñuy mbokk tailleur ñoo ko ubbi pour lépp loo xam ne jëm na ci actualité événement ci participer biñ ñëwee nag yàggul waaye ñu sant leen bu baax gërëm leen ci liggéey bi waaye ñu nekkaat tamit membre Carrefour ndax Seck mi di président wu suñu frère la suñu xarit la. bokkaat ci Carrefour Thiès ñu sekk panel yu bëree bëri tey mbégte la rek Carrefour Thiès ndax Serigne Touba Xaadim Rasoul liggéeyam ñëpp la ko liggéeyal muy murit muy tiijaan muy muy laayeen ñëpp la liggéeyal kon tey ñun li ñu war mooy nekk benn Carrefour nag suñuy projet wax nañ ko rek mooy social solidarité suñu mbëbët yëpp mooy social solidarité waaye remercier nag autorité yëpp mais nag ci média bi occasion la pour ñu remercier suñu frère suñu genn wàll ba fu mbeng ba fu démb yónnee na teraanga bu yaatu ba fu mbeng defal ñu defal ñu teraanga bu yàgg ba fu mbeng wax dëgg yàlla lépp def ko rek ci tuuru mm-hmm. Carrefour Thiès gépp waaye remercier tamit président El mm-hmm. ndax tamit def na benn geste deux cent cinquante mille accompagné mm-hmm. waaye nag fekk ay feeram ay doomam jiitu ci ku ci mel ay Serigne xaadim si aadama Dieng Nguuda Babacar muur Mourde ak Tambidou ak ñoom ñëpp def seen ñàkk ngir def loolu lépp seen ñàkk tey moo taxoon ñu ñemee ba fas yéene teg ñeent mën a ceeb ngir jox ko jaamu yàlla yi waaye seen kilifa seen waajur bi mu ñëwee Alaaji Moor teg ci deux cent cinquante mille mu ni bool leen ci reer ko sant gërëm ko xaadim nag mooy yeggale sama kàddu te xaadim mooy jël kàddu président El Hadj Mor sopp na bi parce que dafa am loo xam ne tamit yàlla moo ko def muy bàyyi faalam waaye tàbbi ci màggal gi waaye xaadim tamit jeex taq ci màggal gi alalam mag dooleem tey boo demee ay gétti jiit la rek teg nag teg ay gileem teg ay xar lépp berne kon xaadim ñaan suñ borom yàlla sàmm ko ndax turandoo suñu xaadim turandoo Serigne Touba xaadim rasul la xam naa moom la ñuy bàyyi moom mooy jël kàddu président El Hadj ngeen yeggale ak moom incha allah waaye bi mu ñëwee rek suñu xool sedd na ñun suñu safar tey gëm nañ ni Serigne Touba nangu na ko. ndax ci teraanga alaaji moor ci lañu jël ci suba wàcce fi kaamil alxuraan ay kilifa Moustapha Kayre di borom xam-xam bu rafet alxuraan jàng fi alxuraan ju rafet ñëpp am mbégte bi mu daanalee xasida yee jug boobu ba tey ñu koy jàng xasida fi mu daanoo ba ñu ngi commencé wax ci la sëriñ Xaadim egsi te nag ku ne xam ne ne Serigne Khadim day bëgg Serigne Touba te dox dox ni Serigne Touba kon nag buñ tollee fii Serigne Khadim yegg si day waye ne Serigne Touba tàbbi na ci ñuy ñaan suñu borom yàlla sàmm la yàlla mottali sa yéene am nañ cofee loolu ak mbégte yal na la yàlla taxaw yal na la yàlla yiir fépp foo bëgg a dem ci doole Ahmadou Khadim yal na la yàlla àggale gor dëgg nga jërëjëf jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ah mu ngi mel ni di dellu di santaat bu baax di sant mbooloo mi fi nekk teew yëpp ci kàddu président El Hadj Mor sopp na bi di sant Pape ak ñim àndal yëpp liggéey bi di sant bu baax sëñ Babacar Mbengue bi nga xamante ne mooñ féete nday joor sëñ Tambédou waaye ñu fekk fi ki nga xamante ne sunu jëwriñ la sëñ Mouhamadou Seck nga xamante ne liggéey bi ñuy liggéeyal sëriñ Touba ci gox bi ñun ñoo ko ànd mu doon secrétaire général daayira Nour daayira ni ci jiital sëñ Massamba Sey kon ñun dañ koy xoolee bëtu jëwriñ sëñ Massamba Seye ci jotaay bi ñu ngi koy jox wàcc waayam bu baax a baax a baax di ko ziar bu baax barke Cheikhul Khadim mu mel ne lii dafa nekk loo xamante ni day mbégte ku xam tamit président El Hadj Mor Gueye sopp na bi xam ko ci social xam ko ci def lu baax xam ko ci bëgg lu baax kon su ñëwee ku ne xam ne ne ndaw jeunes yi yëpp def ko référence ci li muy def. Ah, ci weeru tedd wi de bokk na ci weer woo xamante lépp loo doon def lu mel ni benn suñu borom da koy ful ful ay téeméer ci weeru safar nga xamante maanaam jëf ci weeru safar kon bokkul ak jëf ci weneen weer mënuñoo bokk naka noonu ci weeru gàmm ñu santaat bu baax bi ñuy ñëw ci délégation bi ñu àndal mooy Ousseynou jàllo ñu koy nuyu di ko siyaar bu baax a baax a baax moo nekk nii taxaw waaye ak taalib ya Fall ñun ñu ko di ko sant ñun ñoo bokk ànd kon mu mel ni ñoom ñëpp mënoo leen a tudd te sa xel nekkul ci alaaji Mor Gueye sopp na bi kon lii Pape Sylla ngeen def da koo defal lislaam yëpp ndax tey ñaata doomu aadama ñooy toog lu mel ni ngeen koy pare di ko defar tey nga xool ñu bëri taataan fii même ba ci ay liggéeykat yéen a ngi xool sorewuñu sax mbana yi loolu lu muy tekki mooy ñoom ñi ngi bàyyi xel kon xewlu yi ñu fi war a xewlu kon ne xam ne lu ñu wax ci doomu aadama mu xiif rek nga teral ko nga jox ko mu lekk yaakaar naan tuyaa ba ci nekk bokkul sax ak i julli ak war suñu borom da koo beral beral cant kon soo leen li ci ma ci gën a marqué waale mooy soo xoolee Pape Sida taalibe Seex la moom ak ay soxna maam ma taalibe Sëñ Babacar Si Alaaji Moor mi ngeen wax taalibe Sëñ Babacar Si la waaye yéen a ko organisé téye mbir mi fas yéene ko doxal ni ngeen ko doxalee loolu am na lu muy wone mooy ni lislaam lépp ñoo bokk tey mooy li ma doon wax kon keroog ni seexul xadim bi muy dem di dem ci géej gi demul woon rek ngir tarixa dafa demoon pour lislaam yëpp bi mu ñëwee ñëpp ñëpp jariñu kon loolu ngeen gëm te loolu ngeen doxal waaye loolu nag le président Alaaji Mor di dund di ko doxal ndax munoo xam ndax léeg-léeg tijaan la wala murid la wala nangam la ndax maanaam ñëpp la bokk njaboote moom na yonente bi jikko yonente bi rek moom la moom la yor soo demee këram boo yéeg escalier Serigne Saliou Mbacke moom ngay njëkk a jàkkaar lool kon loolu rek bari na lu mu wax bu dee màggal gi gis nga ko ñoo koy ànd Touba ñoo koy ànd lépp kon sa jàmbeedu maanaam mënu leen a gën a def lu am solo lii mooy bernde waaw doomu gën a def lu am solo lu ëpp lii di bernde waaw waaw ndax it maam Serigne bañ ko laajee woon ci lu bari daf leen ah dabe ndab mën ngaa fekk góor yi ay góor yàlla piir ñu juddi dinaa di def lu ne lu baax la naam waaye soo leen bëggee romb wala nga dab leen rek del joxe ndab barke Seexul Xadim kon nag li ngeen def nii muy bernde man da ma maa fekk ci sama fief li nga xamante ne sama xol la moom la ñu gëm moom la ñu bëgg muy bernde waaw kon nag def ngeen lu am solo président El Hadj Mor mi ngi leen di sant bu baax di leen encouragé ci lii ngeen xamante ni moom ngeen di def lii ngeen xamante ni defal ngeen ko lislaam waaye defal ngeen ko tamit région de Thiès yëpp ndax lu mel ni nit ñi da leen a war a roy. ci lii ñu koy def nii nekkul rek non non murid rek ñoo koy def wala dara waaye da ngeen koo ànd lislaam a fi nekk fi murid a fi tijaan a fi xaadir a ngi fi laayeen a ngi fi ñëpp fi bokk nekk képp koy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah ngeen organiser ni waa Carrefour Thiès sañ ngeen ibbil buntu ñëpp et puis ngeen may chance ñu bari jëm cee jëf ngeen ibbi seen i buntu kon def ngeen lu am solo xam leen ne lii président alaaj Hadj Mor Gueye sedd na ci bu baax a baax a baax a baax a baax moom lii rek la bëgg lii rek ci lu baax luy jëmale nit kanam ci luy dimbali néew di doole te lii bokk na ci dimbali néew di doole ndax dina am ñoo xamante ne am amuñu luñ jëndee añ buñ fa rombee añ ku xool ni mu demee ak ni ngeen ko organiser xam ne macha allah rabbi kon nag ñu ngi santaat bu baax. ah di di di woowaat ñëpp rek waa Carrefour Thiers ñëpp di leen jox rendez-vous ah fële ca kër Sëñ Tuubaa ga Daaru Tanzil ah Pape Sella ñoom També du ñoom ñëpp euh, xam ngeen ni mu demee kon ñu gën a soññ waa Carrefour Thiès yëpp waaye soññ waat waa région de Thiès yëpp waaye soññ waale maam bépp soppe nga xamante ni foofu ca Daaru Tanzil dalu président Alaaji Mor gi loolu la yàlla dogal moom foofu mooy dalam foofu la woote màggal gi foofu la woote ñëpp ni nañ ko jox rendez-vous foofu la loolu nag Pape Sylla moom mi ngi noonu joor ñu ngi lay sant bu baax ñu ngi dégg léeg-léeg yéeg gis yenn vidéo yi nga xamante ni yaa ngi koy def président Alaaji Mor ñu di ko suivre kon nga xam ni ñun dañuy njaboot Alaaji moor waaye ñu xool bu baax fi mu lenn loo xamante ne jaarul ci woon yoon rek ñi xam nañu du ma ko négocier dama lay fekk fa nga nekk fu mu toll nii bul yaakaar ni xam na xam naa fa nga nekk xam sa place te xamoo ko ca gaar ba laa lay fekk ñu sëñ bi nangam nangam na nga waxee keroog baaxul nii nangam nangam président a Mor nag daa am ay agent secret am lépp loolu la ko a defal waaw waaye nag ndokk ba nga xamante ni lu baax la ñuy dégg ngay wax si moom su doon day safaanoo rek kon daanaka kon Baye Fall dal nañ ci kaw bi yàgg Baye Fall moom ku ne xam na ni wutul cër wutul dara ñun laxasaay rek ñun dañoo laxasaay doon Baye Fallu Cheikhul Khadim waaye ci niñ Cees ñu gën ñoo miin ci Baye Fall Alaaji Moor ci soppe Alaaji Moor yi kon ñun daanaka ñii rek lañ taxawee ñu ànd ko mbokk taalibe bi xam leen ni groupe sopp na bi Sénégal bég na ci lii ngeen def fii ku ci bégul rek soxlaatal sa bopp def leen nag lu ko gën a kawe waaye nag li ma cee wax rek tëjee rek mooy borom bis bi nga xamante ne moo tax ñuy gàttandu bis bi ndaxte ku amoon ngénte wala ceeb di nga ko def préparation lii dafa nekk ci safar gi mooy préparation màggal Touba waaye nag ñu xam ci ni borom bis moom dafa ñemewul bor ndax am gi ma am pay fi mu toll kenn ku ci dugg dukki wala nga ñukku ñukku ci ah ba déwén nga xool barke Seexul Xadim yokk rek ngeen di def naa Thiès TV tamit bu yëpp wax dëgg yàlla nga xamante ne liggéey bu rafet mi ngeen ànd ak euh, président Alaaji ànd ko groupe Soxna ànd ko yëpp ah di santaat rek dama koy tëjewaat fa ma tàmbalee waatoon rek sant jëwriñ Modou Seck ndax moo fi suñu jëwriñ loolu la yàlla dogal kon ñu ngi koy sant di fa sant kilifa yi fi nekk yëpp nag waaw ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi ci seen seen daam saaxo seen nañ ko tamit ci biir nit ñi kon ñu leen di sant di ñaanalaat daal président Alaaji Mor suñu borom guddal fanam lool yàggal ko fi lool te mu ànd ak wér lool ak xéwal yu yaatoo yaatu barki seexul xadim yàlla na ko suñu borom defal defal ko mbooleem ñi fi nekk ñëpp ak ñi mu dégg tëdd euh, dégg ngeen tudd leen te ñoom it dañoo bokk ci ñi président laaj Mor formé euh, ku mel ni euh, maa ngi dégg ngeen wax Nguuda ci jàpp ci waaye maa ngi dégg ngeen di wax Adama Dieng ñoom ñëpp maa ngi dégg nga leen di wax kon nag sant nañ bu baax a baax a baax barki seexul xadim kon jërëjëf Sëriñ Touba jërëjëf Sëriñ Touba jaraw lak maam Cheikh Ibrahima Serigne Mountakha Mbacké yàlla fi yàgg loolu te ànd ak yoon barke Cheikhul Khadim. xanaa ñu nuyoowaat rek e, sof suñuy kàddu ci kàddu sëñ Xaadim si ndax comme ni mu ko waxee e, waxante lu baax ci sunuy diggante di ko seedante dafa am solo ndax comme ni ñu seedalee ni bu fi jëwrin nekkul moom jàppee na ma comme jëwrin ndax daayira Nuuru Daarayni bi nga xam ne Alaaji Modou Gueye sopp na bi at mu jot mu defal ñu teraanga. loolu yàllaa ko jaarale ci jëmmam moom mii moom sëñ xaadim ndax at mu jot daan ko dise di jaayante di toggi ginaar di ko defal imam aadi murid yëpp di ko ziar te taalibe cheikh la mais alaaj moor bi mu ñëwee daf ñu ko wàcceel at mu jot mu jox ñu nag boole ca cent mille wala trois cent mille ñu defatuñ ci dara moom lañ ciy gunge ko ku la ko defal nag yàlla moom moo tax te buñ ne bis bi suba la guddi gu jot këram la ñuy nekk kër El Hadj ba deux heures trois heures du matin te saa ñu fa demee dañ fay fekk ay ay wëllëre bi passé bi ñu fa demee ñu ngi fa fekk doomu Pape Malick mu ndaw fa lay nekk muy jàng di jàng di jàng ba deux heures mu yëkkati ay xéwal jox ñu ñu dem def ko yëkkati chèque jox ñu kon dañ koy sant bu baax damay wax nag ni nit bu def lu baax faaw ñu wax ko ndax alaaji moor politiqueul soxlawul mairie soxlawul dara bëggul kenn ku ko woteel àndul kenn mais day def da yàlla tax parce que buñ ko dara jaalee sopp na bi mu gis ay julliti yàlla yuy liggéey lii nga def tey firnde la ay waa ñi ko jiite kuréel gi tey ay taalibe cheikh lañ ñun ñëpp nga xam ne ay murit lañ tey bi ñu ñëwee dañoo laxasaay topp ci ñoom Pape yàlla ak El Hadj Mor sopp na bi moo tax parce que groupe Carrefour bu amee doole wala mu am xar kanam yàlla ak El Hadj Mor Gueye sopp na bi moo tax parce que ñëpp ko sopp kon nag ñu ngi koy yóbbante cant ak ngërëm man El Hadj moo jox ma xaalis joxalu ma dépense lu ma location mais daf maa defal lu gën loolu mooy dama nekk ci benn di ci yëngatu élection tayri jub si mbay Babacar Mbengue mii doy na seede taxaw ni dama bëgg bëgg a dem El Hadj Mor ne ko teg dem ànd ak sekk nekk ci ginnaawam ba pare yëkkati alalam jox ma mais ki la defal loolu mais mënoo ko fay loolu moo ëpp kon ni nga ko ñaanal alaaji moor mu yàgg fi sax fi dàkk ndax mu yàgg fi njëriñ la ci ñun parce que nit moom buy def lu baax nañu ko def ñun téyeer bu fi am téyeer alaaji moor gay sopp na bee nga loolu vingt millions wala trente ko jox nit yëkkati kayit original jox la ne la demal quatre ans ci ren alaaji mos sa woote ni kaay leen ma xool fu ngeen toll mosul am te kayit ba léegi mi ngeen mën parce que borom Tuubaa su may joxe xaalis si UG ba laay dem joxe ko mosuma gëj bëgg suñu bis boobu yor naa numéro am nag mais man bu ma yàlla booleeg nit kii di tànkam di ndeyjooram lu ma soxla ci alaaji Mor ki laay woo même vidéo bu nit ba def lu baax ma gis ko moom laa ko yónnee macha allah mu mu bëgg ci lool kon ànd boobu yàlla na ko sunu borom saxal jàllo ñu ngi lay sant yooyu di bu baax ndax sunu sunu bañ defoon ci groupe sopp na bi macha allah sëñ Bas dalal ñu loolu kenn du ko fàtte ñu ngi ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm Carrefour Thiès moo mujjee juddu waaye li ci sunu borom def man 58 whatsapp moo nekk sama téléphone 58 whatsapp yoo xam nga ci dara bokk nañ ci ñett xaw ma ñeent mais yu ci bari du ci wax mais kii Carrefour Thiès moom ko suñu xaadim soññe nag daaru tanzil boobu na ko ñëpp waajal maanaam màggal gi foofa dafa war a dafa war a yëg ni Carrefour yokk na ci bu baax a baax a baax ndax alaaji Mor Gueye sopp na bi ñu ngi koy ñaanal tawfeex ak taysiir ci barke borom Touba jërë ngeen jëf Mor Gueye jukko yonent la lamboo waaye kii dafa lamboo jukkoy Cheikh Rama Fall maam Lam Fall Babil Mouridine may sa bigee Kumba Fall dabay maam Seyna bu Njaay kii dañ koo tuddee matu mu nekk dëgg dëgg dëgg baay Fall moom kon sekk da nga wax lu am solo ndax dama koy nettali ci diggante Cheikh Abdoulaye Yakhine ak Cheikh Ibrahima ak Serigne tubaa mooy sa digganteek ak Mor Gueye sopp na bi ak xaadim seen diggante ndax nit li ñaan ki gore bu la nit booleeg moom lépp looy def bala ngaa def war ngaa jaar ci kooku dem ca moom sekk yow da ngaa gore di wax ci Mor Gueye sopp na bi jëmm la joo xam ni ndawalu guddi la boo lambee da ngay daj dangay def ni yow rek la waaye dañ ciy sant kenn di xaadim nii xaadim li mu ko waxee sànq rek dafa def ni xàmmewu ko waaye li muy liggéey ci Thiès ñun dañ koy yëg parce que ñun ku am dëgg rek la ñuy àndal ak ki nga xam ne dafa tegu ci yoon bu baax waaye xaadim sa digganteeg Mor Gueye sopp na bi billaahi wallaahi ku ma tegal kaamil ma giñ ñu dëgg la yow danga ngaa làmboo ko Mor sopp na bi yow yaa dàq joxe ñëpp alalam du ci xaar kenn kon ko jooju boo ko yoree xaadim ànd koog suñu jàmbaar ji di Mor Gueye sopp na bi dañ lay ñaanal ci doole Ahmadou Xaadim yal na la Sëriñ Tuubaa taxaw yàlla na la Cheikh Ibra taxaw ndax sa liggéey gis nañ ko ci cees sa alal kenn du ko mim ni Mor gee di sopp na bi di def rek noonu ngay def waaye di ñaanal Gueye Mor Gueye sopp na bi yàlla na ko yàlla may te gën a dolli teraanga yàlla na ko yàlla gën a dolli xéewal ndax dundam njariñ la ci askan wi mu ngi ci hôpital yi mi ngi ci jirim yi mi ngi ci baayo yi mi ngi ci carte grise yi mi ngi ci kër yi képp koo xam ne Mor Gueye sopp na bi defal na la tey bu xëyee suba boo dajawaateeg moom mu defal la. man de lenn rek laay wax. du politique. xaarim si mii. waaw xaaral ma tey ma terminer rek. ah Sidi. kenn du Alaaji Mor Gueye sopp na bi yàlla na.